shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli ginnaaw bu ñu santee suñu borom subhaanahu wa taala julli ci ab yonentam sallallaahu alayhi wa sallam ñoo ngi jaajëfal baax Xaadimu Rasuul kii di wax ak yéen mooy seenu dongo bu ñuy wax Cheikh Massamba Cissé di dongo ci Serigne Cheikh Mbacke mu Serigne Modou Fatick xëri suñuy wasiila toog nii ci kàddug Serigne moodu mii nag ak Serigne Mouhamadou Mourtada mii ca la nooy waxe ñoo ngi jéggalu it lépp lu ci dëng suñu gàtt xam-xam la ak suñu ñàkk façon waaye moom ñoom seen euh, xol ak seen xel romb na fi ñuy waxe sëriñ Modou nee na mi ngi leen di wax asalaamu minallaahi aleykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu eh, sëriñ Modou nee na mi ngi leen di nuyu nuyoo boo xam ne ci xolam la ko tibbe tàbbal ko ci seeni xol di ñaan suñ borom soxna taxalaa jataay bii ñu toog yàlla bu mu doon jataay boo xam ne dana bokk ci jataay yi suñ borom di jëppi yàlla na bokk ci jataay yi nga xam ne suñu borom moo koy gërëm sëriñ Pape Diop mii nag la ne woon nañ ko sa jotle ay kàddu yu cant kàddu yu ngërëm ndax lii lépp wax dëgg yàlla ci moom la bàyyi ko ci nuyoo boobu ak sant googu nag dañ ciy jiital monsieur le ministre mi toog ak mbooleem ñi nga xam ne ñoom la àndal ñépp ak taalibe yi mu fi fekk kenn ku ci nekk nga bàyyi sa yitte bañ yëgee ne sëriñ bi mi ngi ñëw ba tey kenn yendalut kenn fanaanul kenn ku ci nekk la nga man ci saayir ak ci baatin yaa ngi koy def ngir jëmmi yàlla ak yonent bi ak fañ tegoon sëriñ Cheikh mu doon lu kawe loo xam ne nun ñi xam ni sëñ Pape Diop mii doxe mën naa bañ a doon guléet ci nun ndax xam nañ euh, digganteem ak sëriñ bi te itam sëriñ bi mooy koo xam ne comme ni ko ñëpp waxe boo ko gisee ci jëmm da ngay am ci moom cofeel gu mag waaye bu ngeen jaxasoo moom da ko dul mën a muñati loolu moom la ko suñ borom defal loolu it moo nekk ci ñii ma ñoom li fi ñi ngi mën a jëriñ nit ñi ñoom jàpp nañ ne loolu moo di dundal moo leen fii tax a yàgg mooy tax seen dund neex mooy tax ñoom loolu lañ gëm jàppuñ ne dañoo war a jariñoo nit ñi waaye dañoo jàpp ne nit ñi ci boppam ñoom ñoo leen war a jariñ waxtu nekk mm-hmm. kon mission boobu koo xamoon sëriñ see xam ne ci noonu rek loolu doxee ba ba suñ borom ñëw ak coobare mm-hmm. loolee it mooy seen i tànk ñoom ñii moo tax nag yàlla mi nga xam ne moo leen nattoo lool nga xam ne ñoom seen mission adduna bépp mooy jëf ci nit ñi te yàlla képp tax loolee mi ngi koy an mi mi mi ngi ñaan ci màgg suñu borom subhanahu wa taala loolee yàlla na yàlla na yàgg lool ba sëriñ Cheikh fa mu bëggoon a teg tànkam fépp ñu mën ko faa teg ci barke sëriñ Touba Serigne Pape sëriñ bi nee na tànkam yii mu fi ñëw seet si mboolem taalibe yi fi nekk yëpp li ko waral. bu ko neexee mën na koo wax bu ko neexee mën na ko bañ a wax ndax dara ump la ci. Hmm. ndax sa diggante ak Serigne Cheikh rek lay lay lay lay lay dundal te loola dara jiituwu ci Serigne Cheikh doonoon seen mag ngeen ànd dund seen dund gépp moom mii mu ñëw doon seen doom ànd ak yéen ca loolee fas yéene fu mu tegoon tànkam ci sell fu mu tegoon tànkam ci dimbalee fu mu tegoon tànkam ci lépp loo xam ne lu neex suñu borom subhanahu wa taala saa bu ngeen geesoo gis ko mu ànd ko génn loolu rek mooy bëgg-bëggam. lool yi nag nee na mi ngi yalwaan ci suñ borom subhanahu wa taala mi nga xam ne moom moom lépp di ko joxe kattan ak wir rek moo mën a tax loolee mën caa àgg lu kawe njort yan leen ko suñ boroom defal monsieur le ministre yaag mboolem yi nga xam ne ñooy délégué de quartier yi mel ne suñu sëriñ mii nga xam ne moom euh, sa sëñ Habib moom dama mënut a wax ci moom ndax dafa am cofeelu xol goo xam ne bu ñu dee waxtaan yu baree baree baree bari dama dama ko duma waaye daal mook sëñ magay mii ak sëñ jéeri saw ak mboolem ñi nga xam ne ñoo ñëw ci bis bi ak sëñ xalifa ak ak sëñ maak sëñ maaka bi nga xam ne moom mooy mooy mooy euh, loxo day yoru sëriñ sëriñ sëñ Mamor ak mboolem taalibe yi boo limee da ngay juum mbaa doo matal waaye sëriñ bi daal nee na li tax ngeen di fi ñëw dara génn ci suñu borom subhaanahu wa taala aku taalibe mi ngi leen di seede seedeel itam ni nga ko ni nga ko waxoon léegi fee ca sëñ ca ca ca ca ca sëñ Kader sëñ sëñ dafa amoon nu doon doxe am lu mu bëggoon mooy waxtu wu nekk li fi mi ngi ko doon yëg di jariñ nit ñi nit ñi di jariñu ci moom képp moo doon bëgg-bëggam te yàlla képp tax nee na loole it fas na yéene noonee moo ko doon àndee ak yéen loolu rek mooy bëgg bëgg ba léegi du teg fenn tànkam foo xam ne andu faak njabootu sëñ Cheikh gépp bëgg-bëgg di bi di benn muy fexe ba tege ci aw yoon kenn ku ci nekk ku am ku sa bët xonq ñu dimbali te yàlla tax yàlla bu bëtu kenn xonk sax yàlla suñ borom soo soxlaa dimbali jaam ñëpp ba kenn ku ci nekk lañ naroon a daj ci yow suñu borom wuutu leen ba séenu yan man a mën a woyof ndegam loolu mun mënta ñàkk itam waxtu wu nekk yàlla ko suñ borom woyofal te defal liñ ci ndam yu kaw ngot njort maanaam daal wax ji buñ toppoon ba ngoon jot itam sant la gërëm ñaan ak salaat ko lëri yàlla yeesala kóllëre mboolem taalib yi nga xam ne suñu borom subhaanahu wa taala dogal nañu bàyyi seen yitte ñëw ngir yàlla ak yonent bi ak Sëriñ Tuubaa ak kóllëre googee kenn ku ci nekk yàlla ba sa yaakaar ci guddi yàlla ba sa yaakaar tas bëccëg képp koo xam ne am nga ànd nga fi ndombay tànk balaa ren dim déwén ñoo ngi yelwaan ci di tawasuli ci sëñ Modou Fati Xari mi nga xam ne mooy booy juru sëñ Cheikh kenn ku ci nekk yàlla nga yokk ba yëkku képp ko fa andi woon jàngoro jàngoro joojee lu mu mën di toll yàlla na ko boo jugee fii yàlla na ko suñ borom saafara képp ku fi andi woon tawat ci jafe-jafe adduna jum mën di doon ba la ñoo dugg màggal gi yàlla na suñ borom soo tax taala saafara lépp di jéggulu baax a baax a baax a baax a baax suñu xol a fees waaye wax dëgg yàlla li ñuy wax mënuñ ci di leen sant bu di leen gërëm di ñaan suñ borom subhanahu wa taala yàggal ko fi moom itam di ñuy ñaan ngeen ñaanal ñu sëriñ Modou mii yàgg ci kanamu njabootu sëñ Cheikh jëpp ndax li wér te wóor moo di bëgg-bëggam moom ci njaboot gi mooy la sëñ Cheikh bëggoon mooy ku ci nekk mu taxaw la la la war ne ci yow mu def ko ci yow te te te du ko yëg du ko yëgal loolu loolu loolu rek moo doon bëgg-bëggum sëñ Cheikh loolee nag ñoo ngi yalwaan ci màggu suñu borom subhanahu wa taala yéen ñëpp yal na ngeen ko fekke yal na ngeen fekke lépp suñu borom ba ngeen lu kawe njort ci li ngeen di sàkku di jéggalu ñëpp ñëpp ñëpp di baalu ñëpp ax wasalaamu rabbana aleykum wa rahmatullahi wa barakatu